bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. kaddu gi di àddoo fi ci studio Alioune Momar Lo taaxum kaw ma ñu duppe Cheikh Imam Assane Cissé mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës nak bokk na ca grève ba ñu bëggoon a amal ni ki tey jii nag teg nañu ko ci suufa tey déglu ñoom a jaaykatu jën ak liggéeykat ya nga xamee ni ñu aju ca marché géej bu Kaolack bi nee ñu nag meeru Kaolack bi moo leen seeti ji ñaan leen njekk ak toogaayu nëgandiku ngir mën a ut ay solution ca seeni ay jafe lu ni mel daañu ko yaatal xibaar yi euh, gannaaw fukki at yoo xamee ne ñoo ngi àndoon ak waa coalition euh, Benno Bokk Yaakaar bi euh, parti bi di rassemblement pour le peuple ñu gën koo xam ci RP ñoom nag jël nañu rek dogalu dakkal lépp lu yëngatu ca boobule coalition te it nag ak législative yi nga xamee ne moom la ñu dëgmal nee nañu nag bépp bannière dagan na ca ñoom ba mu des Benno li tax ñu jël dogal bi ak fa ñu ko jëlee loolee lépp daañu ca dégg Cheikh Babacar Dieng gannaaw seen lëkkaloo Sénégal jaarale ko ci jëwrin gi nu dénk wàllu ndaw ñi centre conseiller ado bu Kaolack bi nag defaraat nañu ko ba noppi itam daal di koy daloo waaye nag ca daloo googee waa conseil communal de la jeunesse bu Kaolack bi nee nañu daal amuñu ca mbégte ndaxte joxuñu leen fa kaddu loolee itam daañu ko yaatal ak Cheikh Tidiane Diagne reportage yu koor gi ni ki tey ji itam nag gannaaw ñi nga xamee ne ñoo di tailleur yi daañu seeti ji rek ñi nga xamee ne di jaaykatu tissu yi tendance yeeg fa mu Alioune Badara Diop bu li lépp yebee bokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew tàggat yaram toftal ci Koro Gueye ak Baara Diop daal di koy jeexalee li ci yéenekaay yi dal leen jàmm ci xibaar yi. Le journal Ngoné Euh, ci kàddu gi euh, fego a Codou Seck madame euh, kenn mi ci wàllu xarale gi asalaamaaleykum beneen yoon dal leen ak jàmm ci xibaaru suba gi ñu doore ko nag ak na ñu leen ko junjee deltu ginnaaw nag mujj naay am gannaaw ba nga xamee ne moom meeru Kaolack bi nag ñaan na leen njekk ñi nga xamee ne nag ne ñooy liggéeykat ak jaaykat ya faxe ca marché géej bu Kaolack bi tegagum nañu nag gréew ba ca suuf lu ni mel nag aatu Ndiaye moo ko daal di xamle mi ngi ci téléphone Cheikh Tidiane Diagne. mu nekkoon di def Kaolack cent poissons pendant trois jours mu nekk mercredi jeudi ak vendredi e, yàlla dogal nag kilifa yi ñëw nañu aussi tànk jàmm ñëw nañu fii waxtaan nañoo ñun monsieur nga xam ne moo doon suñu naqar feeg ñetti fan danañ ci taxaw nañ leen may ñetti fan ñu mën a taxaw ci suñu naqar nga xam ne ñun moom lañu amoon ba tax ñu bëggoon a dem giraw ñetti fan nag comme bëriwul mareyeur bokk d'accord na nañ leen may ñetti fan comme kilifa la te déplacé noo ñëw ba marché ñun ñaan ñu nañ ko may ñetti fan pour bu ñetti fan yi jeexee su nekkee li waxoon def nañ ko ah baax na su nekkee ne waxoon defuñ ko nag ñu door a seetaat suñu ñu continuer ko ñoom nee ñu a tax fexe ba léegi waa xay ga ñëw ci biir marché bi ñu bis ci biir marché bi beneen bi ci des li ci si jafe-jafe ci biir marché bi muy wàllu glace ak yi ci des ñoom itam bu soob yàlla danañ ci taxaw waaye daal li gën a jemp fi mu nii mooy ñene ca xay ga te jaay mi danañ ko dindi di ci lim gën gaawee loolu daal ci lañ nekk ci lañ doon waxtaan ba bokk ci d' accord te loolu tax ñu ne kon nañ suspendre grève bi di leen déglu feek ñetti fan ñu ñu ko defee baax na ñu ko est ce que problème bu marché au li ngeen ci wax ak jafe-jafe yu bëri yi ci nekk yëpp est ce que mairie mën na koo régler est ce euh, que problème jafe-jafe yoo xam ne vente illicite la ci biti muy xay ga ak feneen loolu mairie mën na koo ak ay politique municipale ñu réglé ko mais bu dee yeneen nag am na yoo xam ne yii loolu état lañ ciy xaar te loolu aussi état dina ci jot la euh, ci des muy état de route yi ak leneen loolu wax dëgg yàlla état ko mën ñu ngi xaar état nag état aussi nag bu nekkee ne ñëwul réagir dana jot wàllam ci dañuy sàmm nag mu nekkoon ay kàddu yu Atou mi nga xamee ni mooy njiital mareyeur yi ci kawlek doon àddu noonu itam jëmee rek ca grève ba nga xamee ne gàntal nañu ko ci pàttali nag boobu la grève ni ki tey ji rek lañu ñu ko namoon door naroon itam nag tàggatémbe lépp lu aju ci wàllum njënd ak njaayum jën ndéem nag ña ngay waxtaanee wàllu njënd ak njaay ca la ñuy des gannaaw seen lëkkaloo ak waa service régional élevage ak brigade d'hygiène bu Kaolack bi service régional du commerce bu Kaolack bi itam nag jàpp rek ci diggante marché Zinc Medina Baye ak marché Géej lu tolloo ko téeméer ak juróom fukk ak ñeenti kilogramme ci ay pooju ginaar ak i ndawal yoo xamee ne itam nag nañu ko doon jaayee baaxul jubluwaayu opération bi moom Mamadou Camara ma jiite kër googee dikkaat na ci ci micro noir bi ay cuisse de poulet yoo xam dañ ko saisir loolu ñu ngi ko defoon ci benn opération boo xamante ne nii ñetti service ñu ngi ci daje muy service du commerce service euh, régional de l'élevage ak a na ci région de Kaolack comme ni ko xamee Kaolack région frontalière la région frontalière soo ko waxee mu wax ay difficulté am par rapport ak ay produits jóge feneen di te wax du jaar ci yoon bi mu war a jaar loolu cuisse de poulet yi ci la bokk parce que depuis 2006 importation cuisse de poulet dañ ko tere au Sénégal donc ñu mutualiser suñuy force vendredi passé def benn opération bu mag boo xam ñu ko defee ci marché Guèye marché mais aussi marché xam ne ay nag la ak ay xar mu doon loo xam ne aussi façon bi ñu koy jaay du façon bu baax aussi sensibiliser la population par rapport ak consommation yenn façon de viande yi les de service d'hygiène des services la yooyu ñoom sax ñoo xam naa ñoom ci ëpp xam-xam am na loo xamante ne di ko consommer vraiment ci consommateur baaxut donc ñoom doon les premières victimes yi nga xamante ne ñoom lay njëkk a lor donc li waral aussi opération bi loolu ci la Sénégal nga xamante ne ni importation irrégulière cuisse de poulet da leen di concurrencer déloyalement. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. Euh, lii itam nag nañu ko junjee ca bopp ba la ñu ko yaatale rek ci xibaar yi euh, cër bi des na nag ci biir coalition benn bokk yaakaar donte ne ànd bi ay euh, yàgg na ba tax na nag waa parti bii di RP ñu gën koo xam ci rassemblement pour le peuple ñoom nag jël nañu rek dogalu dakkal bépp yëngatu ca biir boobule coalition dogal bu ni mel nag mi ngi tukkee ca waxtaanu bureau politique ba Cheikh Ababacar Dieng. dañu doon càmbaar nag diggante 2012 ba 2022 seen ànd gi ñu ànd ak kuréel ñu di PBNO bokk yaakaar waaye ñu ne daal lépp naqar rek la ñu ci jëlee Issa Ba mooy coordonnateur yu négandeku bi ci boobu la parti RP dafa def bureau politique càmbar ànd bi mu ànd ak Benno Bokk Yaakaar depuis 2012 ba léegi biñ ko càmbaree ñu gis ni suñu àndoo beeg Benno Bokk Yaakaar ñàkkaloo nañu ñaari poste député yi nga xamante ne moom lañu ñu sëñ Mamour bàyyee woon ndono 2012 euh, ba 2017 législature boobu RP participé wu ci 2017 ba 2021 aussi parti boobu ci assemblée RP bokkul ndax euh, position yi ñuy placé suñu responsable nationaux yi position inéligible la il va falloir que nga am ay démission wala nga am ay décès pour que ñu mën la dugal ci liste bi nga dem siéger ñu jàpp nag ni loolu du cëru RP ci Benno Bokk Yaakaar du cëru RP ci Sénégal du cëru RP aussi ci euh, Assemblée nationale. lii it nag moo tax responsable politique yi bokk ci parti Serigne Mamour ñas bi ne dañu jël dogal dakkandil seen boole mi yëngu-yëngu buy jëmale kanam coalition Benno Bokk Yaakaar te booleetuñ ci seen bopp dàquñu nag ba ànd ak waa Yewwi wala waa Wallu ci élection législative yi. mbala sax ci biir ànd nawle waaye Benno Bokk Yaakaar moom ñu ngi koy waaj a wax baay baay Issa Ba ñu ne buñ dakkalee suñu yëngu-yëngu ci Benno Bokk Yaakaar nañu ubbi benn possibilité d'alliance boo xamante ne euh, rassemblement pour le peuple ak képp koo xamante ne wóolu nga ko wala yaakaar nga ko war nga mun ànd ak moom ci politique bi muy mëne nga ànd ak moom ci politique boobu ci la ñu nag commencé jox suñu coordonnateurs régionaux yi ak coordonnateurs départementaux yi ñëpp jox ay fiches de parrainage ñu demit ministère de l'intérieur retirer suñu déclaration de jëlaale suñu clé de parrainage bi fii may wax ak yow nii rassemblement pour le peuple mu ngi parrainé pour dem élection la bu dul Benno ci bañeeru lu mu am mu li mooy li muy pesé ci Sénégal. jamono jële nag donte ne parti baa ngi dox di amal yoo ci mel ni parrainage ak lu ko niru di yi dogal bi mu ngi ci mboolem responsable RP yi ci 46 département yu Sénégal bureau politique lañ jëlee bi joxagum ginnaaw Benno Bokk bokk yaakaar. pour élection législative yi ñu jëm. loolu moom leer na. beneen bi mooy décision bi du décision département ñu encore moins décision région de Fatick décision nationale la bureau politique moo ko décidé le 16 avril 2022 à l'hôtel Le Ndiambour fan lañ defee suñu bureau politique. kon ñun pare nañ. pour ànd ak keneen ku dul Benno Bokk Yaakaar. fàttali nag rassemblement pour le peuple. gannaaw ba Serigne Mansour mu Serigne Mamoune Sy génne àdduna ak tey amagul njiit lu bees. lu ñu xam. jaajëf euh, Cheikh euh, Babacar Dieng dañuy euh, des ba tey nag ca googu leen mbir parti bi di RP nag yàgg naa am taxawaay mësul wax coalition bi waaye nag li ñu seetlu jamono ji mooy ne nag ànd bi moo ca gën a perte ndaxte deltu ginnaaw gu mat sëkk la ca jëlee lu ni mel nag du samay kàddu Issa Ba moo ko xamle bu ñu tënkoo ci ay doom moom nag mooy responsable départemental ba ca Foundiougne bi la yoon noo bi ay moo taataan ay kaddoom. parti dañoo def jàngat suñu àndoo ak Benno Bokk Yaakaar depuis 2012 après premier tour bi bañ jógee ci premier tour 2012 ba léegi ñu ngi ànd ak Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar di jàppale Macky ci liggéey bi te nag nekk ñu gore ci ànd bi mais li ñu jàngat mooy 2012 bi ñu demee élection législative suñu responsable national yi nga xamante dañ leen investiroon ci liste bi position bañ leen defoon ci liste bi mënuñu woon jàll pour nekk ay député législature assemblée nationale 2012 ba 2017 RPCG mu nekk lu naqari militants yi ak responsable bi ñu demee ba ñu seetaat ne dëgg-dëgg nañ continuer essayer waat waxaat suñu bopp yëngalaat pour que bu ñuy defaat investiture yi ci benn bokk yaakaar ñu jël RP non seulement ñu def ko ci position bu baax mais ñu jël ci RP au moins lu mu gàtt gàtt benn góor ak benn jigéen li ñu constaté aussi bi liste yi génnee dañu constaté ne non seulement jëluñ benn góor benn jigéen mais benn jigéen lañ jël mooy la présidente nationale des femmes def ko ci position bi nga xamante ne aussi élection yi mënu cee jàll léegi nag li ko tax a dugg assemblée mooy benn député bu jigéen bu génn àdduna moom la remplacer loolu donc moo mënoon tax mu dugg assemblée ñu ne nag loolu du cër RP ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu nag ñu toog nag jàngat loolu ñu nag ñu ngi jëmaat ci élection yoo xamante ne assemblée nationale dafay taxawaat ci péncum ndaw mu réew mi nga xam wax li nga xamante ne moom la askan wi dund ñu ne bi nga xamante ne moom lañ nekk ci ñaari législature yi nga ne sëñ Mamour mi créé parti bi avant muy dem woon nañu ñaari député yoo xamante ne 2007 bi ñu demee élection législative yooyu sëñ Mamour bàyyil ñu ba mu ñu ko bàyyilee bu léegi ñu RP amatul benn député boo xamante ne dafay falu ci assemblée ñu ne loolu jaaduwul ñun ñëpp d'accord ci ne nañu ajandeegum suñuy yëngu-yëngu ci biir Benno Bokk Yaakaar. ajandi euh, boobee nag am na luñ ca euh, jublu euh, benn bi nag mooy bañ a ci rek ci benn Bokk Yaakaar mu leen di teg tànk ci législative yi ñaareel ba itam nag mooy amaat beneen taxawaay bu ñu leen dul naxati ci ay digee Issa Ba yokku ca ne deltuwaat ginnaaw du yombaat nag ci dogal bu ni mel ñu lu ay kàddoom ba ak noa bi yaay. te jéem ci élection yi bu PSC ñu ut beneen coalition boo xamante ne du nekk opposition radicale waaye du ànd ak gouvernement bi ñu nekk coalition boo xam ne day nekk ci digg bi bu ñu état doxalee ni mu war ci askan wi ñu ànd ak moom bu fekkee état doxalul li ko war ci diggante maskan wi ñun ñu ànd ak askan wi jaamarloo ak état léegi nag fi ñu toll nii dañuy dem ci ay élection élection législative mu nekk jamono bu am doole ci parti politique RPN du tëddaat di nelaw wala du bàyyeewaat boppam Macky Sall comme ni mu ko defoon wóolu ko jox ko kaddu suñu lépp ba pare mu def lu ko neex aj suñu yëngu-yëngu ci bennoo léegi nag ñu ngi ci négocier pour am beneen alliance pour mun a dem élection législative dañoo toogoon waxtaan ñu wax ñu lu set lu leer nañ ñu toogaat waxtaan te toogaay waxtaan yooyu li ciy gën a yéeme mooy dañuy toog ak Mansour Mansour Niass mi nga xamante ku nekk xam ne kilifa la ñu dig ko loo xam duñ ko def ñu digaat Mansour loo xam duñ ko def léegi nag Mansour nekkut est la ñu daloon 2012 dalaat ñu 2017 est-ce que du ñu dalaat 2022 bi loolu la bañ moo tax ñun tooguñu waxtaan fu nekk nii toog waxtaan bi li ko mën a indi rek mooy lu ne weng lu ñu teg ci suñu loxo mais fi nekk nii fii may wax a yow nii jël nañ ndogal ci bureau politique instance nationale bi nga xamante ne moom mooy jël ay décision jël nañ fa suñuy dogal yépp léegi ñu ngi négocier ak ay responsable politique ñu ngi négocier ay parti ñu ngi négocier ak ay alliance pour que ñu jéem a def benn alliance centriste boo xamante ne day jouer rôle arbitre bu kii deful li mu war a def mu dañuy euh, des ba tey nag ci euh, coowal politique euh, gannaaw nag kàddu yi nga xamee ne Souleymane Diaw Sarr ak Abdou Ndiaye meeru kër Maba Diakhou yëkkati woon nañu ko nag te doo ŋàññi rek doxalinu meeru Kaolack bi di Serigne Mboup ay jege ñaaleem nag moom maire ba génn nañu rek tontu leen tegaat leen seenu ko place Baye jaa moom la ñu dénk commission bu soxal wàllu ndaw ña mu ne itam nag andi na ay leeral rek jëmee ci seen i ay projet ak lay jubluwaay bi ay kàddoom doom ngi ci micro noir bi yaay. su Kaolack waaye ànd liggéey bi yëpp dafa am lu leen naqari trop trop trop ñu jëlee stade boobu arrêté ko li tax ñu arrêté ko mooy stade boobu benn amut yoon bi nga xam ne foofu nga mën a jaar pour dem fa te tey jii li ñu proposé ci loolu muy terrain yi nga xam ne dafa mën a jege quartier yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir dëkk bi ñu am ci cinq zone 3 yi sax dèjà identifié nañ ko nga xam ne dañ koy defar stade yu normal ba pare am ay tribune jege askan bi askan ba fa nekk di gérer gestion bi di am lu ñuy dugal seen kees ñoom ASC ya fa nekk yooyu je pense que vision boobu man jàpp naa ne moo gën fuuf ñuy defar benn terrain boo xam ne nii dafa nekk sing te amul gazon amul dara amul benn tëli boo xam ne war na la faa mën a yóbbu pour nga mën a def sa loisir normalement lu mel noonu ci trop buñ gisee suñu morom zone bu mel noonu di ko ŋàññi dañuy jàpp ne kooku xam-xamam soriwut wala nga xam ne xamut sax fi mu jëm parce que jamono dafa changé ñun nag ñi ngi xaar projet yooyu yàkkamti di ko xaar ak vraiment ak bëgg ko mu réaliser ko bu ko defee jeunes yëpp gis ci seen bopp a yi gis ci seen bopp Baye Dia moomee nag doon addu rek moom la dénk nag commission bu soxal wàllu jeune ci ànd nawle ànd liggéey ca geneen wàll ga nag coordonnateur ba tey rek ca daaru rahmati moom nag nee na Serigne Mboup nekkul ci lu dul la mu digoon askan wi ci wàllum proximité ba tax na nag ma ngay dànkaafu itam di axtu ne Serigne Mboup di seen ak morom du seen ak mappandoor euh, ci taxawu askan wekk am fu euh, man turam souvent daf may réer sax dégg te muy nekk yenn parti yoo xam ne nekkul sax parti boo xam ne parti buñ gëm ne parti la ndax dañuy langaamu rek lu mel ni AFP boo xoolee depuis lors ba léegi jël nañ seen i nit yëpp sacrifié leen sànni leen ci ginnaaw Benno Bokk Yaakaar ñi langaamu joxuñ leen dara mënuñoo gañe dara tey ji si tey ñoom ñoo waroon téye Kaolack téye boo xam ne bu jaar yoon la waaye suñu leen déggee tey ku mel ni monsieur le président Serigne Mboup teg ay actes yu leer naññi mu jéem a xool ni ñuy amee extérieur xoolal bu Kaolack kenn la boo xoolee conseil am na ay vide fa nekk bureau yu doyut maire sortant bi génne la amoon léegi bii war am ay bureau war a ay bureau defaraat bâtiment bi ba mu méngoog jamono suñu xoolee bâtiment 1960 ak bâtiment boo xam xam ne la ñuy defee xaalis suñ ko jëlee indi ko fii dinañ am luñ bëgg te du tere après bâtiment bi dina continuer loolu nag ba mu joxee promoteur bi nga xam ne moo gagné marché bi moom la ko delluwaat da sawar kontaan ci torop te moo continuer di liggéey bëgg a yee population bi wax ak ñoom ne monsieur le maire li mu waxoon Kaolack waay si la nekk ba léegi fexe état civil bi képp ku soxla extrait boo ñëwee nga toog ci salon bu mucc ay xaar sa document mu génn nga dem wala nga oote ci centre d'appel bi suñ paree ñu ne la sa document pare na loolu la bëgg dafa bëgg population am jege maire am maire am jege population am kon nag suñ gisee ay yeneen doomu Kaolack yoo am ñu ñëw bëgg baare loolu dañuy tamit nag ña ngay gaaral ay kaddu nee nañu nag la woon woneeku na te it nag ak élection législative yi nga xamee ne moom la ñu dëgmal daañu gis firnde bi lu ni mel nag Aïssatou Ndiaye Tall moo ko xamle boole ca itam nak di yóbbante galgal meexu Kaolack bii di a Serigne Mboup ne itam na xam ne Kaolack am na yeneen i doom te jot na ñu xam ko ay kàddoom mu ngi ci micro El Hadji Oumar Cissé. fii nag Kaolack dégg nañ ñoo xam ne ñu ngi yuuxu ne ay candidat lañ yaakaar nag li fi amoon dootu fi am wax naa ko keroog déglu ko li amoon élection locale yi dootu fi am amoon na commune Kaolack commune Kaolack la woon ñu dëkk ci département bi ku ne xam ne gagné département bi on l'a gagné au la main kon li amoon dootu fi am xam nga tam wax le président du conseil départemental ci commune Kaolack la dëkk tey nekkoon APR demoon liste parallèle ñëwaat dellu ci waat ci këram tey ngeen gis fi maire département bi yoo xam ne demoon nañ ci yeneen i liste tey revenir ñëw fekk ci ko jàppale sur les quatorze maires les douze maires ñoom keseeg seen i bopp dañ fi nekk ak askan bi topp si ñoom nekk fi tamit ak maire yi fi nekkoon nekkoon dans la coalition benn Bokk Yaakaar ñëw dolleeku si loolu kon muy une majorité boo xam ne waxuma une majorité écrasante mais plus qu'une majorité lay doon dans département de Kaolack dans la région de Kaolack tamit di wax ne nag Kaolack nag dañu bëgg xam ne ñu xam ne nag benn doom bu góor rek nekku fi benn doom rek nag juruñ ko fi ba tey bu mairie ñëwee nga ne naa jël buñ ne chambre de commerce nga ne naa jël buñ ne port de Kaolack nga ne président jox ma buñ ne usine nga ne président jox ma waaye nag nañu xam ne nag ndaw Kaolack dañu soxla ñu leen dimbale ndaw Kaolack nag ñu ñoo xam ne dañ fi nekk askan bi di jëriñoo askan bi paa ñu jëriñee askan bi man nag li may wax kenn xamee ma wax ju bëri du ma wax ci rajo tout le temps waaye nag damay wax parce que ci département dëkk du ñu nangu kenn dootu fi victimisé wu taxaw di victimisé wu foo toll ci presse pour ne askan bi Kaolack nañ la fal loolu jeex na loolu moom jeex na fii ci département Kaolack di wax ñooñu nag man damay wax askanu Kaolack que ne fii ñu jëm xam nga am na xam ne uy ji woon nañ le président Macky Sall ko ne yow la àndal waral génnaan nañ taxaw fee ñoom dañuy dem élection léegi dañuy laaj ñooñu li ñu président Macky nañ ko wax askanu Kaolack parce que yow boo ne gisee nga ak président Macky Sall motagul sax un mois nga ne li waxoon def ko da yàkkamti ba tax nga génn waaye est-ce que intérêt Kaolack nga ko wax intérêt Kaolack kenn mënu koo régler ci benn six mois intérêt askanu Kaolack ak li askanu Kaolack soxla du six mois lañ koy régler kon war nañ ko déclaré la guerre nee na président day indiwaat day jël ñëw fi nekkoon ñoom la fi tegaat moo tax day ñëw toog waa dinañ ko wax na ko ndax ñun doomu Saalum lañ wala duñ doomu Saalum. moom Aïssatou Ndiaye Tall moomee naka ma nga cay boole rek di sàkku naka ci Serigne Mboup rek mu daal di leeralal askan wi ca ba mu gisanteeg njiitu réew mi la mu fa doon waxtaanee lu ko jiitu itam mu mel ni ki rek ñi tontu ñi ko jiitu nee na nag coalition bi am na ndëgër laay te it naka ku mu war a cëral rek na la ay kàddoom ba tey ak El Hadji Oumar Cissé. xam nga man mi ngay waxal waxal benn de un de deux ngay wax ak jigéen kon foog naa ne résoudre nga question boobu tontu nga sa bopp parce que parti bii nag yaakaar naa ne jox nañ si cër ñu si war a jox te président Macky tamit xam na li xew parce que élection locale yii nga xam ne moom la ñu génn gis nañu jàngat bi ñu si def mooy ndaw ñi dañoo ñëw en masse jigéen ñi tamit foog naa ne ñun bi ñu fi nekkee bi mooy sama deuxième mandat treize maires femmes lañ amoon fi mu toll am nañ plus de maires yi def nañ ko fi de local locales au niveau des territoria loolu nag je pense que président Macky Sall bàyyi na si xel te xam na loolu bàyyi na si xel baax te yaakaar naa ne fii ñu jëm tamit dina si bàyyi xel mais fi may revenir rek dagg nga ma fi ma doon wax dama ne yéen journaliste yi dama bëgg kooku di wax ne moom candidat la président Macky Sall lam ko waxoon defu ko dama bëgg ngeen laaj ko lam ko président wax na ko wax waa Kaolack yi parce que soxla nag kenn mënu koo régler si un mois kon nag loolu laa bëgg te di ko waxaat nag nekk ñun ñii di politique fii dëkk Kaolack ay doomu Kaolack lañ ay doomu Saalum lañ juddoo Saalum yaroo fi di fi def lu baax nag di xeex nag intérêt suñu askan buñ ko waree xeex di topp nag l' intérêt général buñ ko waree topp te fi mu toll nag si intérêt général la nekk war koo topp muy ne intérêt général mooy fexe ba le président Macky am une majorité écrasante au niveau de l' nationale parce que tey ñi fi nekk li ñuy xeex mooy jël askan bi en otage tey jël ko di ko dooree ko pouvoir kenn du defati dara te gis nañ li président Macky Sall def wàllu réalisation ñun Kaolack gis nañ ko le directeur Sénégal et là dama ne woon même bu fi mu ñuy bu ñu defal doon dara man dama naan fierté la le fait que ñu ne fierté la le fait que ñu ne Modou Ndiaye Rahma Kaolack la dëkk li muy def ci social fierté la tey ki nga xam ne tey mooy le président conseil départemental muy Benjulum dëkk fii Kaolack kon yaakaar naa ne dañuy wax rek ne li amoon dootu fi amaat te pare nañ ko ñu ngi ci terrain bi su ma ko waxee war nañu koo gëm ndax man du ma wax politique u presse nag terrain laa ci xam bu waa xeex waree ma xeex ci terrain bi du xeex dóorante nag du saagante koy defee li ma leen di wax nag mooy que ne nag kooku nag dañ koy wax ne le maire de Kaolack que ne pare nañ di droit laaj baatu askan bi ndax moom moo war taxaw rek di victimiser wu pour ñu jox ko nguur victimisation nag foog naa du fal kenn def na ko ba falu local nag foog moom falu législatif ak loolu. mu nekkoon ay kaddu yi Aïssatou Ndiaye Tall mi nga xamee ne moom mooy jaraafu commune bu Ndiafate dañuy des nag ba tey ci wàllu politique ne coow nag utali ji rek diwaanu Touba laxasaayuwaat liggéey te dëgmal législative yi nag jot na te it nag ku jóg politique bi jaar nañoo bàyyi xel bu ñu leen bëggee gagné lu ni mel nag Isma Dioum may xelal njiitu réew mi moo ko xamle jaarale ko ci ab ndajeem joxe ndimbal gu mu doon amal Mamadou Moustapha Mbaye ni mu koy defee saa su ne moom Isma Dioum di conseil président Macky Sall doon joxe sukkaru koor ñi nga xam ne ñooy militant APR ak Benno Bokk Yaakaar waaye ci wàllum politique di wax ne faaw rek bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy kujj gi ndaxte kujj gi bari doole jubóo moom te ñàkk ci seen biir. boo gisee des éléments des ténors sont partis. Cheikh Abdou Bara Dolly ci Yewwi Askan Wi. l'ancien gën a bokk baay gën a liggéey te bàyyi xiiroo beeg ŋaayoo bi man loolu laa gis man gisuma leneen man daal li ma war nekk maa nekk ku ci nekkut maa nekk man nelaw ma gudd nelaw ma bëccëg du ma ko bàkkoo sax mais moom moo war daal foofu laa mooy moom rek melu na daal donc ñu ngi koy tàllaat suñu loxo pour mu seet nu ñu gën a jàppalee daal ci moyen a mën a xeex ci xeex bi waaw xat na mais nag nañ góorgóor rek Isma Dioum di wax ne nangu na képp ku nga xam ne président Macky Sall tànn la nga jiite mu ànd ak xam na ne tànn ko moom mooy li gën a mën a musal parti bi Moustapha Mbaye Touba Alfayda FM. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point yéen ñuy euh, toppandi ba tey ci juróom ñeen fukk yu tombal benn kàddu gi di àddoo fii ci euh, Medina Baye lii itam naka waxoon nañu leen ko euh, géwentu la woon waaye nag mujj nay fireeku rek doon dëgg centre conseil ado bu Kaolack bi nag defaraat nañu ko ba noppi itam daal di koy daloo maanaam daal daal di koy ubbi lu ni mel nag mi ngi am rek gannaaw njàppandalu coopération belge bi di Enabel nga xamee ne dugal na ca daanaka lu tollook fukk ci ay millions lu ni mel itam nag gisoon na rek teewaayu jëwriñ gi nu dénk wàllu ndaw ñi Cheikh Tidiane Tidiane Diagne. gune yi toll seen digg ndaw kër gi la ñu leen jagleel ngir ñu fiy ñëw ñu leen di jox li nga xamante ne moom moo di seen xalaat ba kenn du ci génn xeet waaye tamit doo wàcc yoon wi nga xamante ne moom la suñu diine ak itam suñu yoonu réew di doxee centre conseil adolescent bu Kaolack defaraat nañu ko ci ndimbalu ministère de la jeunesse ci jàppandalu coopération Belgique bi nga xamante ne moom moo ko financé ci lu toll ci téeméeri million ak lu tekk nen ne Fatoumata Tall jëwriñ gi dénk ndaw ñi ci réewum Sénégal si loolu nag bu ñu ko defee grâce à la coopération bi ñu am ak waa Belgique la ñu leen ci gërëm bu baax di leen sant waaye également engagement wu état wu Sénégal pour ànd ak yéen jàppale ndaw ñi si li ñu tuddee seen santé de la reproduction ndaw ñi dañoo soxla accompagnement dañoo soxla déglu dañoo soxla ku leen jàppale ci domaine boobu loolu moo tax ministère de la jeunesse à travers projet bi tudd PPJ nii du bàyyi benn effort ci ginnaaw pour jàppale leen ci lool centre bi nag yéen a ko moom seen yëpp la lu mu doon yéen a ko koy def. mu doon jëf joo xamante ne nag ndaw ñi rafetlu nañu ko bu baax a baax rawatina ñi bokk ci kuréel gi ñu dippee les pères éducateurs ñoom nag nee nañu réewum Sénégal li mu def baax na gannaaw bi ñu présenté li nga xamante ne moom moo nekk ci barab bi. bokk na ki tamit ab sage-femme ngir mu génne ndaw ñi Ibrahima Sagna di wax ne lii moo ko waral. souvent dañuy am ay xale yu nga xam ne dañuy nekk victime de viol wala victime de grossesse précoce sage-femme bi da leen di jël en charge parce que souvent dañuy am problème pour mën a dem ci hôpital yi dañuy am problème pour war mën a dem ci district de santé yi parce que dañuy ragal pour fekk fa seeni parents moo tax dañuy préférer ñëw fii gis sage-femme bi dige yoo xamante ne nguur gi war na koo def fii ci Kaolack ñaax maire yi nga xamante ne Serigne Mboup maire bu Kaolack ñëwoon na ci ndege mi ñu gën a jàppale kër yu mel ni le ci wàll ko koppar. parce que suñu conseil souvent dañuy am problème mu financement di jot ci seen euh, subvention yi nga xamante ne ni moom nañuy war a jot monsieur le maire loolu ñu ngi la koy dénk di ko dénk maire yi nekk ci région bi yëpp pour ñu jàppale conseil bi pour que seen activité yi di bi ñu doon def ci bi ñu mel nag mu Sénégal ak Belgique ñoom ñoo ko daal di seq door ko ci atum 2019 ba bi ñu jëm ci kàttanu borom bi. Cheikh Tidiane Diagne dañuy des ba tey ca ndajeem daloo googe nga xamee ne sax ni ki démb la woon rek ca CDEPS bu Kaolack moom nag jëwriñ gi nu dénk wàllu jeunesse jaare na ci itam naka daal di woo ndaw ñi rek ngir centre boobee ñu def ko seen yëf yi bopp laata itam muy wax ci jéego yi nga xamee ni état bu Sénégal def na ko ci wàllu xëyu ndaw ñi ak njëriñal Cheikh Tidiane Diagne. donc ñi ngi leen di wax ni agent yi fi nekk pare nañ pour déglu leen pour accompagner leen ci seen santé mais également ci li nga xamante ni mooy seen autonomisation def leen ko seen mbiru bopp ñëpp a nekk yéen a tax ñu toog fa. di gërëm monsieur le maire ci discours bi mu fi tenir sànq par rapport ak emploi des jeunes ku nekk xam nañ ni lu la ñor la waaye xam nga ni également lu ñor président Macky Sall la loolu moo tax mu jël programme bi ñu xëyu ndaw ñi teg ci Sénégal mu nekk programme boo xamante ni bu financé quatre cent cinquante milliards programme boobu bëri ay fànn waaye fànn bi ci gën a mag mooy recrutement spécial bi muy soixante cinq mille emplois ñu créé ko recruter ay ndaw ci domaine yu bëree bëri loolu nag bu ñu ko defee ci Sénégal ville bu mag bu mel ni Kaolack mënu cee des ginnaaw loolu moo tax ci mbiru recrutement yi ak euh, mbiru financement yi Kaolack am na ci wàllam bu baax bi ñuy lancé programme bi man ak ministre de l' emploi Dame ñoo fi ñëwoon ñëw ca université ba présenté leen ko après ñu signé ay contrat ak ndaw ñi boobu ba tey contrat yi ñu ngi signé première phase bi jàll nañ ko te defe naa ni Kaolack am na ci part bu rëy parce que bu ñu dajalee li tollook financement yi ak emploi yi ñuy créé 6882 jeunes touché nañ leen te ci 6800 yooyu 5440 yëpp ci entrepreneuriat la maanaam DER convention état employeur am na ci emploi yi type d' yu bare bare bare mi ngi ci kon programme xëyu ndaw ñi jéggiwul Kaolack am na beneen étape nga xamante ni dinañ ci ñëw nga xam ni jàppale nañ ci ndaw ñi incuber leen bu baax a baax a baax di ko dénk conseil de la jeunesse bi ñu ngi leen di féliciter bu baax conseil bi ci seen dynamisme ak seen engagement ñi ngi gërëm ndaw ñu fi teew ñëpp li leen jox rendez-vous très bientôt incha allah parce que lancé nañu maison de la jeunesse et de la citoyenneté fii ci Kaolack incha allah rabbi dinañ accélérer travaux yi ba président de la république ñëw fi inauguré leen ko. Néné Fatoumata Tall mi ñu dénk nag wàllum jeunesse bi conseil communal de la jeunesse bu Kaolack boobee nag muy junju ñoom it tamit nag teewoon nañu ca ndaje ba waaye nag kontaan nañu benn yoon ndaxte itam nag joxuñ leen fa kàddu terewul ne nag ña ngay rafetlu xalaat beek centre bi. njëriñ li mu nar a jural ndaw ñi Cheikh Tidiane seen ak Cheikh Tidiane Diagne. d'abord damay féliciter royaume de Belgique à travers ONG bu ñuy wax Annabelle ñoom ñi nga xam ne tey ñoo initié lii di réflexion wu centre conseil ado bi mu doon euh, kër goo xam ne kër gu am njëriñ la pour njagamaar yi ak ndaw ñi parce que day def lii ñuy tuddee la sensibilisation di def la prévention ak aussi la promotion ak aussi la prise en charge de problèmes liés à la santé de la reproduction lu ñuy ñaawlu mooy ñun ñu nekk fii doon le représentant des jeunes doon structure bu nga xam ne moo fi teewal ndaw ñi joxuñ ñu kàddu jox keneen mu wax ci turu ndaw ñi loolu du yoon le président de la république Macky Sall sant leen santu leen loolu parce que gis nañ effort yu muy def ngir jeunes yi gis nañ à chaque fois jotaay mel ni ci amee mu concerné jeunes yi dina jiital notre président Khadim Diop le président du conseil national de la jeunesse pour mu wax ci turu ndaw ñi kon aussi yaakaar nañ nu la war a amee au niveau local vraiment joxuñ ñu kàddu loolu dañuy taxaw dénoncé ko ne du yoon du yoon du yoon encore parce que ñun ñoo fi représenté jeunes yi en tan que administration parce que ku ne CDEPS xam ne c'est l'administration ku ne inspection régionale de la jeunesse xam ne administration la kon duma leen jàngal lu ñu war a def. dañ leen doyadal daal ci ndege bi. mën nañ ko tuddee noonu parce que kaddu gi ñun ñoo ko moomoon parce que lii ñuy inauguré tey madame la ministre wax na ko le conseil de la jeunesse benn structure boo xamee la dañ de la jeunesse joxuñ ñu parole dañ koy ñaawlu dénoncé ko ne du yoon du yoon du yoon te kontaanuñ ci xibaar yi ci Alfayda yegg si euh, nañu nag ci ponk bi nga xamee ne moom la ñu euh, jagleel nag xibaar yu soxal wàllu euh, kor gi jaarale ko nag ci programme bii di solidarité Ramadan kër gii di fonds de solidarité nationale ñoom nag yóbbu woon nañu rek ndimbal lu am solo ci wàllu dund jagleel ko nag détenu ya ca camp bu Koutal Souleymane Fall ma nga xamee ne moo jiite woon délégation bi ma ngay rafetlu nag nañu leen teexto laata itam muy dikkaat ci taxawaayu fonds bi mi ngi ci micro Cheikh indi Kaolack mooy am fu ñu bokk muy fonds de solidarité nationale bokk état nekk direction bu xam ne yàgg na waaye dañ koy yeesalaat ñu ngi bokk ci ministère bu développement communautaire équité sociale ak territoriale. di am mission comme di dimbale ñi nga xam ne dañu nekk ci choc choc nag boo ko déggee suñu langage mooy ñi nga xam ne dañ lakkale wala mën na leen jàpp ñooñu dañ leen di dimbale mais nag dinañ dimbale ko feebar te mënul dimbale ñu bari même feet yi sax dañuy dimbale korite gi nii am ne dañ koy def pak dañuy appuyer nit loolu daal moo ñu li ñu indi Kaolack nag mooy dafa am benn programme bu ñu tuddee solidarité Ramadan sunu directeur de manière spontanée moo ko moo ko moo ko instauré ne pourquoi pas koor gi du ñu dem xool ñoo xam ne mën nañ leen dimbale

indi nañ fi sucre indi nañ fi date indi nañ fi tamit de l'huile. comme yéen da ngeen di da ngeen di dimbale waate ñoom jotu nañ ne nit ñi dañ leen a fàtte ndax yéen dañu leen di fàttaliku ci ay jamono. waaw dinañ leen fàttaliku te am naa yaakaar dinañ leen gën a parce que comme ni ma ko waxee ci tubaab dañu nekk ci dëkk boo xam ne réalité yi fi nekk dañagul ba léegi. nit ñi jàppuñ ne lii ci sama gannaaw nattu moo fi dugal nit ku baax dina fi dugg keneen nit dina fi dugg donc dugg fi taxul nga bon mais nag ñin ni ñu baaxoo mooy boo fi xasee dugg rek na benn détenu bu ko wax léegi boo génnee sax nit ñi dañ lay daw on te considère alors loolu war mën a nekk beneen cas mais nag loolu ñi ci gën a mën a wax ci yeneen la nekk peut bu ngeen amee occasion dinañ leen ci gën a xuusal mais man vraiment mënuma ci def développement yu sori li ma xam daal mooy kuñ téyee dematoo ñëwatoo vraiment soxla nga ndimbal parce que ci dem ñëw ci la nit di mën amee lum suturloo ku toog benn place vraiment dafay xaw a métti dugg bi moom xaw ban mais bii jafewul parce que kutaal bi dañ beek bari waay ba laata yitam muy dikkaat rek di wax nekk am na mbégte lool jëmee ci fonds de solidarité nationale bi ba tax na mu sant leen gërëm leen Alioune Diouf ma ngay tontuwaale yeneet laaju Cheikh Ababacar Dieng. maa ngi kontaan bu baax euh, di wax ne tout à rek def nañu remise symbolique waa fonds de solidarité nationale ñoom ñoo ñëwoon fii tey campagne pénal de Koutal indi ndimbal détenu yi nga xamante ne ñu ngi fi waaw loolu nag euh, kontaan nañ ci bu baax a baax a baax tax ba ci turu colonel Jean Bertrand Bocandé directeur administration pénitentiaire ak ci turu détenu yëpp maa ngi remercier waa Fonds de solidarité nationale ci acte bi ñu def. ndax lu mel ni day bëri li muy am fii. waaw comme ni ma ko waxee sànq rek bëri na li muy am parce que administration pénitentiaire noonu la tëree dañu ubbil suñ bunt bi ñëpp ñi nga xamante ne pare nañ pour jàppale prison yi pour jàppale détenu yi mais nag jour spécial parce que don bi importance bi vraiment du ma wax ne amagu fi mais daal en tout cas am na solo daal. waaw par rapport ak nit ñi nag moom ni ma ko waxee bon question de sécurité la mais euh, teewul su ngeen demee administration pénitentiaire année wu nekk dañuy defar benn rapport d' boo xam ne situation carcérale lépp moo siy nekk lu ngeen soxla ci effectif rek di ko fekk ci rapport boobu nga xam ne officiel. désormais di la gërëm léegi ñu ne sa comportement dafa rafet nooy def ak ñoom. waaw comme ñun ñoo fi nekkandoo par yenn saa yi gars yi dañuy wax ne détenu bu tëddee ñaari jour gardien de prison bi tëdd na benn bis parce que ñoom ñoo fi nekkandoo donc dañ nekk comme famille mag ak ñu leen di yedd vraiment leen conscientiser ñu jox leen respect parce que ay nit lañ ay doomu aadama lañ donc loolu lañ jiital ci suñu liggéey moo tax ba vraiment suñu rapport daal dafa ratax ku nekk respecté nga sa morom daal. yegg si euh, nañu nag ci li leen ko xam ngeen ne itam ne ñu ngi dëgmal lii di ak kori gi tey it nag ku wax tailleur ala foog nga wax li nga xamee ni moo di tissu yi ba tax na nag moom suñu ndaw demoon na rek doxantu ci marché Medina Baye bi waaye nag ñoom jaaykat ya la ñu ko xamal mooy ne tendance amul atam ren ji njaay ma itam demewul noo ne te loole nag dara waral lu ko lu dul dund gu cher gi ba tax na sax yenn ci ay waajur ya mu dajeel lañu ko xamal mooy ne kori gi fetu ndaw ñi la Alioune Badara Diop. ku wax fetu korité wax jënd ak jaay yi rawatina ci wàllum tissu yi lu néew ci ay bés ñu dem ci feetu korité bi ñu ngi fii ci marché bu Medina bàyyi jaaykati tissu yi ñoom door nañ seen liggéey naam sax mbir mi leen neexul ndax jamono fi mu toll xaalis amut réew mi métti lool ba tax na benn benn ci ay client la ñuy gis bu ñu sukkandikoo ci jaaykati tissu bi di wéyoo ci tuuru moo Modou Diagne. waaw waajtaayu korité bi de wax dëgg yàlla waajal nañ ko wut nañ bagage yu rafet teg waaye njaay mi daal moom wax dëgg yàlla ni mu doon mel moom wax dëgg yàlla melu ni ren melu ni ren waaye nag a ah, sant yàlla rek ndax ab jaam moom bu yàlla dogalee mu am wër ak le ñàkkut dara lu mu am na sant yàlla suñu borom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax waa client yi moom wax dëgg yàlla par benn benn rek waaye moom wax dëgg yàlla ni doon ñëw moom ñëwul ni moom wax dëgg yàlla ren moom effectivement amul ci jamono ba mu doon neex dañ doon faral di gis lu bari tendance su tissu yi yu ci mel ni Getzner Bageris brodé wala filafili bi wante fi ñu toll ni moom mënoo xam ban tissu moo nekk tendance bu ñu sukkandiku ci jaaykat bi di wéy ci tuuru Aïssatou Diop. waaw tissu bi événement bi événement bi moom njaay mi soit pare rek moo fa nekk ak soit SS bi moom la client faral di xotti bu dee góor ñi bi la xotti ak super 100 loolu moo fa nekk njaay événement ñaata lañ ko fekk. 500 dina tax nga may 3200. déedéet 3000 lañ koy jaayee. yaay booy bilee di wuyoo ci tuuru Ndeye Amy Samb moom da bëgg-bëggam lenn kese la mooy fexe bégal njabootam. waaw ñu ngi waaj ndànk-ndànk rek xam nga korite moom yëfu xale la comme que woor nañ ko si bisimilahi rahmaani rahim bëgg koo eggal si alhamdulilahi rabbi alamin yal nañ ko yeggal naan ndox si jàmm bégal suñuy doom lépp luñ am ñu defal leen ko ndax doom nawle la. at bi moom ute na lool ak at yi ñu weesu ndaxte ren moom mbir mi doxu kakatar lay sax bëgg-bëgg yi bëri ñu ngi ñëw benn par benn bu ñu sukkandikoo ci Arona Faye waaw waajtaayu Korité bi de jamono ji moom wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na yi ñu ngi ñëw tuuti tuuti parce que am na loo xam ne mënul ñàkk parce que jaboot dafa sonn mais li mënul ñàkk daal gars yi ñu ngi ko def wax dëgg yàlla wute naak ya passé daal waaw loolu moo gën a nag njaayam ren parce que amul benn tissu boo xam ne bii génn comme ça ñun ñi doon dem jëndi benn si mu am lu xew ren daal dañuy dem dund gu métti gi askan gi di dund si jamono ji ñuy tollu feetu korte bi lu néew ci ay bés waajur yi di daw dàqee ngir kat jéem a bégal njaboot gi jaaykat yi gisuñ kenn tissu yu bari lool ci marché bi wante bu ñu sukkandiku ci jaaykat yi ñu dajeel fii ci marché bu Medina Baye ak yenn ci ay clients seen kàddu lenn kese la mooy jamono fi mu toll nii dafa métti naam sax jamono gi métti na wante dinañ góorlu ba bégal njaboot gi xibaar yi bitim réew Alioune euh, Badara Diop moomee sax nag la ñuy euh, desal jëli ji xabaaru bi ci réew yi ana foo koy dooree. jërëjëf euh, Ngoné Ndiaye ren xibaar yi bitim réew dañ koy doore réew bu Burkina Faso wax ci coppite lii di calendrier bi lee bi nga xam ni CEDEAO moo ko proposé woon transition bi yees bi wante ci waxtu boobu lee autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci réew bu Burkina Faso ñoom moom jot nañ présenté ab beneen calendrier bu yees ñi nga xam ne ñooy transition bi wante porte-parole gouvernement moom moomu lee di Léonel Bilgo jot na annoncé ci altine bi fukki fan ak enquête bi nga xam ne CEDEAO jotoon na ko proposé ci weeru février bi ñu weesu mbir moomay dem sax ba ñaar fukki fan na réew ko bu Soudan wax fa ay cong yoo xam ne jot nañ ko nemmeeku ci benn village bu nekk si Massaly bokk ci état bu Darfour xayma bi lee li tolloo téeméeri juróom fukki doomu aadama jàpp sax ñeenti téeméer doomu aadama jot a ñàkk seen bakkan ci week bi ñu weesu naam sax gisaat nañ fa ay cong yu yees ci altine bi ñu weesu ñaar fukki fan ak juróom. xabaar yi bitim réew. wax ci beneen biir di procès Thomas Sankara ginnaaw ci loolu léegi njaboot gi nga xam ne ñu loru woon ci assassinat Thomas Sankara ñoom moom la ñu ngi ñaax ngir kat ñu jox leen seen ndàmpaañ. ci bile mbir naam sax procès boobu lay door nañ ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril foofu ci tribunal militaire bu Uganda ngir kat jox ndàmpaañ bu duun ñi nga xam ne ñoo jota laru ci assassinat kii di Thomas Sankara ci fàttali nag bëri na loolu njaboot goo xam ne jot nañ ci ñàkk seen askan tamit ñàkk ci li nga xam ne mooy seen koom-koom xabaar yi bitim réew dem réew bu Gabon nemmeeku beneen mbir ñi nga xam ne ñoo bokk ci gujje gi di daw làqatu ci li nga xam ne mooy gouvernement bi naam sax lu néew ci ay bés bëri na lool ñoo xam ne ñoo bokkoon ci kuje gi daw ñëw làqatu ci ñi nga xam ne ñoo yor gouvernement bi mbir mooy doon loo xam ne askan bi dañ koy naqarlu lool rawati ñi nga xam ne ñu bokk ci kujje gi wante parti au pouvoir moom doon loo xam ne dina ko yokk liggéey wante tamit mayaat ko ay poñ yu bari xabaar yi bitim réew. jeexale xibaar bitim réew ak réew bu France ginnaaw bi ñu ko tabaatee mu doon njiitu réew bu France kii di Emmanuel Macron liggéey bu métti métti moo koy xaar ci juróomi at yi nii naam sax mu ngi wàccal lii di élection législative yi ci weeru juin wante défi bi nga xam ne war na ko relever bokk na ci wàllum urgence climatique ak yeneen jafe yoo xam ne askanu France ñu ngi koy jànkonteel ci waxtu bi ñu toll. xabaar yi bitim réew. foofu la ñoom ci li nga xam ni mooy xibaar bitim réew yi kenn dal ak jàmm. Baak baa ngoog xabaaru ah, tàggat yaram yi Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokki auditeurs yi jërë ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu ko dooree ak football demi-finale aller Ligue des champions démb Manchester City dafa daan Real Madrid ñeenti bal ci ñett ak doublé bu Karim Benzema tey bu juróom-ñaari waxtu jotee Liverpool mooy laaleeg ñii di waa Villarreal ñaar fukkeelu bëccëg bi foofu ca calcio italien Fiorentina mooy dalal waa Udinese bu ñeenti waxtu jotee Bologne di laaleeg Inter Milan bu juróom-benn waxtu jotee tàmbaleeg juróom Atalanta Bergame di laaleeg Torino ci boobule waxtu CAN féminine ci jigéen ñi nag ginnaaw bi nga xamante ay fan dong moo des ci tirage au bi nga xamante mooy Coupe d'Afrique des Nations bi ñu jagleel jigéen ñi tey am foofu ca Maroc Confédération africaine bu football daal dinay fësal dem procédure tirage bi ni mu fas yéene tëddee fukki dëkk ak ñaar yi nga xamante ñoo qualifié muy Maroc Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Nigéria bokk ci groupe yi CAN rugby ba léegi ñu des ak jigéen ñi fa ci Tunisie lay amee nag équipe nationale bu Sénégal ci rugby à seven nag ñu naan ko rugby à sept nag ña nga ci regroupement war faa def juróomi fan ngir mën a am wàccaay bu baax a baax fukki gaynde ak ñaar ñoo fas yéene wala Sénégal ci African Women's Seven bu ñu sukkandikoo ci ki di tàggat di Boubacar jaata nee na nag objectif bi ci compétition bi ni mel moom mooy ñoo jël seen ticket qualificatif ngir dem ca coupe du monde bay am ca Afrique du kii waxtu wi jot na ñu soob ak yéen ci seen rubrique tàggat yaram ak koor. seen rubrique tàggat yaram ak koor. Alfayda que nit ñi nga xam ne ils sont sportifs en général dañuy bëgg continuer pratiquer seen activité physique mais duñu xam ban heure lañ koy mën a def activité physique bi nag heure bi gën mooy boo dogee ba pare boo dogee rek ci saa si bañ a lekk lu diis lu lay tere def activité physique mun nga naan ndox lekk lu yem dem pratiquer sa activité physique bi nga xam ne moom nga tàmm def boo paree nga ñëw soog a reer may insister nag si le fait de s'hydrater boo fekkee da woor déjà naanoo ndox bu bëri nga bëgg a def sport sa yaram dina soxla ndox a hydrater nga wax tamit am na solo lu bëri bëri ndax nit ñi période ramadan xëy na dinañ wàññi tamit activité physique yi ñu daan def ndax du ñu xam heure buñ ko doon defee magok Gone Jaay gannaaw ba la ñaanalee yu jàmm li ma gënoon a fas ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf xibaar yi ci Alfayda. yegsi nañu ci euh, kooru gay euh, Mouloum Géej ak Bara Diop. kooru gay Mouloum Géej o Haaj Ibrahim Gay li des ci koor gi fa ñu koy wàññi DG du benn bu mu wàññi day tàmbali rek mujj wacc ni mu mel neexu ko seytaane moo ko toppee mbooro donte ñoo ngi ci woor wacc sawar na lool ngir ànd ak ci koor gi waaye bu tàmbalee rekk daldi rekki tey tey jii nag euh, caaxaan faaxi tëjtalu naafila gi tax na DG préparé boppam jumaa jëla fanaan ay téléphonam lépp mu ba gannaaw ngir jaamu yàlla lu mat o xaaj Ibrahim Gaye ku say farata matut nooy farloo cig naafila moog waa jumaa ja ci julli geega laataa ñuy jóg ngir waajal naafila gi xaaj Ibrahim ne bër waa ñi di njiix dañoo war a gaaw ci naaf rek kim dendal wokk ko siñ bi daral yëf fi kenn du ko sànjaaf o DG li ko wees la bëgg dabaatal faalewul waa ji na kilifa yi toogee di def seen baaxiyaatu saalihaat Haj Ibrahim moo ngi ne jodd taxaw imaam ne allahu akbar DG mel na mooy Bilal allahu akbar naafila ga door o oh, Haj Ibrahim gay gëree la ñu julli ñaari rakka daal di sëlmal DG subhanallah subhanallah gaa ko comme mu sa ñëw jumaa ja sëñ lii naafila la ñaari rakka sëlmal amul sabaxal DG <laughs> ah bon c'est pas grave on gère o DG moo ngi lu mat dem nañu ñaar fukki simili Haaj Ibrahim tànk ya taxawatut rakka yaa gudd comme kaamil la noonu naafila Haaj Ibrahim seytaaneem tàmbale na di ko ñuuxu mu okk waaj xanaa imaam bi bees la fajar la kim dendal <clears throat> naka ñu silmalaat mu liyaar ko kuy julli du wax ràkk ya continué waat xel mi jox ko mu en arrière waaye nu muy def nit ñi ne ci sàpp yu njëkk ya la doon njëkkante o oh, DG ndax du toog ko wéyal julli gi xolam mooy ko ko sànjàpp na ko imaam bi di jàng rek boole ko ràkk yu gudd xaaj Ibrahim mënatu ko taafantaloo na alxuraan gu neex yi ya Allah <laughs> allahu ba <laughs> mu naan gërëb gaañ petit mu nga defeenu naan allahu akbar cig yalu o DG dippeeku wutu ba imaam ne assalaamu aleykum xaaj ibrahim Gueye naafila tayam gile mat na waaye ngir mu dem kër ga sëriñ Gueye ak Cheikh Diagne ko jàppoo o na naka mu yegg kër ga rek bàyyandiku ñu tegal ko lekk déjeuner teg ndoxu naan xaaj ibrahim ne du naan ba moo for bët teyu ko o DG madam xam ne waayam jile coonoo ko alawtiku ba mu daataan yeewu tisbaar jot fekk xëddëm bi tiim ko mu xool montaram xam li xew waaye li des ci waxtu wi woor ko jàpp na ne xaru la o xaaj ibrahim gay la defati njaaxum aljuma jël si bool yi ngir sarax taalibe yi fekk ne xaaj ibrahim raxasal na ko lépp ñeenti bët dajee DG lan la loo maa xulli du raxafe la fa indi set na aljuma noo taalibe yi DG ne leen bu mag bi jaar fi li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf yegg si nañu nag ci ponk bu mujj ci bile jotaayu xibaar li ci yéene kaay yeeg El Hadji Oumar àllaan bikum fa bëgg ndaw Sénégal yi woteel ko ci wote député yi di ñëw moom njiit réew mi makki Sall ba tax mu dig leen loo xamante ne ba léegi mënut koo def te xolof njaay nag ba wax ne dige bor la ay engagement yu état bi te dara lañ ca deful jëm ci ndaw ñi naka noona li Macky Sall dig ndaw ñi ci jokkoo ak Macky ba léegi furaax daal xëddéem dara la ca ndaw yi gisul ba tax si du quotidien mais gars yi seen affaire baax a gudde ndax Macky ci diggante programme ay procès ay milliards yu xàddu jeex lépp ngir ngoro ndaw ñi laneen lu sotteegut di del siwaatu Karim Wade bi nga xam ne ay farandorom ñu ngi koy xaar l'observateur ne terewul wote député yii candidaturu Karim Wade ak pexe ya ñuy def ba jëlaat nguur gi ci lañ nekk ñoom waa PDS waaye nag faa bëgg ñu xam ne Karim Wade suñ ko jiitalee def ko tedd liste lool du tax seen liste ya ñu dàq ko déedéet fay jàll donte fi mu toll nii diggante waa wàllu yi ak yeewi askan wi ci loolu lañ nekk di calculer est ce que Khalifa Sall buñ ko jiitalee suñ liste bi gars yi duñ ko dàq est ce que Karim Wade suñ ko jiitalee suñ yooyu lii leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na patronat ñi jiite wàllu tourisme bi Sénégal dugg nañu attaqué ñaawlu doxalin seen jëwriñ ji di Alioune Sarr laas yéen a ci wàllu crédit xaalis bu war a jëm ci ñoom hôteliers yi ginnaaw buñ joxee mémorandum njiiti réew Macky Sall ba tax Racine si fa jàpp na lu ji njàgga jëwriñ ji di Alioune Sarr moo njàgg maanaam moo tax jotaguñ seen xaay ba le quotidien yéen a kaay dëggal ko ne Racine Sy kay nee benn engagement bu nguur gi jëloon jëm ci ñoom defuñu ko info yéen a kaay nañuy liggéey ci wàllu hôtel fa ñoo jàppale ci jëwriñ ji di Alioune Sarr ndax ñoom fa ñoo jàpp ne ñoom sax amuñ jëwriñ waa ji du dara lii yéene kaay di ñu xamal ne Barthélemy Diaz waa Benno Bokk Yaakaar ya fañ koo tuumal doxalin labaj bu jaarul yoon ca maire bu Ndakaaru source ay yéene kaay di ñu xamal ne Serigne Mboup maire bu Kaolack procureur déglu na ko de yoon xam nga waa Dakar Actu Serigne Diagne fa ñoo porter plainte Serigne Mboup yóbbu ko ca yoon ndax ay tuumaak sos ak yàq der ak ci lañ ñàbbee ñoom seen i tax ñu yóbbu ko ci yoon ñeneen ñu nar nekk ci wàllu yoon mooy diggante Samuel Sarr ak Cheikh Amar coowal deux milliards ya ba léegi pënd ba wuree gudde source a amoon ñu ko xamal leesi ko yéen a kaay na ko procureur ba moom dafa sàkku ñu inculpé Cheikh Amar leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Malick Gakou ndekete xam na yeneen feem yu mooy politique ak jiite grand parti beneen fànn ba mu yëngatu jëm ci taxawu xale yi juddu faatoog jafe-jafe soxna yi ni mel lépp la leeral ci la wér journal critique yéen a kaay na ko voilà fa ñuy des ci wàllu wér-gu-yaram dem ca diwaanu Louga ngir wax leen na xàtteeb sage-femme yi ñu tëj kaso ndax ak càggante gu ñu xamaloon ca asu soxna ba mu faatu yéen a kaay bi na wérdig ba dogalu xatte ba la ñuy wax bénéfice du doute moo ca nar a bés bi yéen kaay na ko faa koy leeral gis nga mbiru astu soxna bii cëkkatal gi ci am tax na yëf yi xam nga fan la na mujjëm njéggale ndax njabootu Omar yéen yi ñoo ci dox tànki jàmm ngir njabootu astu soxna ga tamit baaxale le monde journal ne tànki jàmm njabootu Omar yéen yi kay taxul benn yoon nag yoon moom def liggéeyam donte fi mu toll nii ña ngay yaakaar jàmm am sa seen diggante li dul jàmm nag dëgg-dëgg Sénégal mooy wàllu wér gi yaram ci boppam hôpital yi docteur yi jafe-jafe yi du xaddu jeex ñàkk yemale ak loo xam ne xel nanguwut ko moo ci fees dell direct news moo ñu ko wax la mu ñu wax moom la solo yéene kaay mooy ne sénégalais si ba ñu waaj dund gu cher gi é gisaguñ dara ndax njëg dund gu cher gi du Sénégal rek ba bitim réew fa yokk ba tax banque mondiale ma ngay artu na boo mooy tuut réewu Afrique yi xiif gu métti moo fi nar a xam alerte yéene kaay na ko xay xalaa yéen yëgu leen lu xew xiif gi tàmbali ni bi fii Sénégal gii njëgu dund gi fi mu tolli fa yokk cher ba jéggi dayo li ci gën a garaaw nag mooy ne fay wëy di continuer fii ba 2024 aay yéen da waxu leen jàmm réew mi fan yu mu jëm yii naaj wi fa bëgg a baxal wala mu togg doomu aadama yi tàngoor wi xam ci koor gi foo ko natt weesu na ko métti saf sàpp la def moom koor gi ba tax yéen kaay bi ne fuutanka ya bàyyi ko nañ fuuta ñëw ndakaaru ndax ndakaaru moom fa sedd waa yeneen diiwaan yi Kaolack ak Tamba ak Fuuta yi di mel koor ga tàng na fa de terewut yéen kaay bi ne nañ muñ rek korite gi léegi tey mu ñëw samedi nag waa aspa ne nañ kenn mënu see gis weer wi waaye mën nañ ko gis dimanche wala altine kon korite gi mën naa nekk altine wala talaata tàggat yaram équipe bu mag a mag bi Real Madrid Man siti moo ko jàpp di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñeenti bal si ñett waxoon naa leen ko démb moom amoon yaakaar waaye 4-3 yi ak a baax si Real xaaral ba ngeen ñëw fekk si ñu fañ leen di wan biddiw bëccëg de tey nag Liverpool mooy bal ak Villarreal stade yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom tribune yéen a kaay mooy xale bu jigéen ba xam juróom-ñetti at te ñu faat ko ca Bargny ca tabax bu yeggut ba mu yela wuñ ko woon dañ koo sàcc rey ko libération na ko kara xale bu jigéen boobu nag takk derrière xam nañ ko ba teg nañ ko loxo alhamdulilah loolu baax na enquête yi ne kaay ne ah man kay fi toll ni Sénégal faa ci jaaxle rey nit gi fa gën a takkarnaase fa gën a bari presque bët bu set nga dégg ku ñu rey ci maa tay ba tax Sénégalais yi fi toll ni seen a kaaraange fa ma ne yàgg naa koo wax benn pexe amul ci dakkal wàllu rey gi ci réew mi lu dul jëfee li ñu yàlla képp ku rey nit ci laa war a rey su ko defee yow moom rayoon dootoo rayati ndax rey nañ la ku ko ko atte yàlla moo gën a maandu li ci yéeni kay yi Elhadji Oumar Ponk boobee sax nag mooy jeexal xibaar yi waaye nag xibaar yi day wéy jamono bu ne ci 3w point radio alfayda point net jaajëfal ko moom Mouhamadou Khalili mi fare ci partie digitale bi jaajëfal ko du sekk kenn mi ci wàllum xarale gi ak it waa rédaction ci jàppandal gi yéen itam nag cant ak ñeel na leen yéen ñi fare woon ci wàllu déglu gi wéy leen di ànd ak sunu ay programme ñaanal nañu leen mucc ak mucculee jàmmi biir ak biti feex ak tey siir jaa ngeen jëfati Le journal Ngoné Ndiaye Reine